aleykum asalaam Hadj Babacar ñu ngi lay nuyu di ziar ñëpp ñuy déglu RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak tukki mi ci anam yu dëppoowul ak yoon ak jéeyam association bi taxaw euh, di ànd jàppalante ca tefes ak mbuur la ñu gis mooy li euh, immigration clandestine bi yóbbu ci bakkan moo raw fuuf li euh, Covid 19 gi def moo waral ñuy sàkku ci kilifa yi ñu jóg ca taxaw na mu gën a gaawe yàq gi wala toj jëm ci lu ëpp juróomi téeméeri dëkkuwaay ca Sébikotane ci kaw kon tàllaluk Bididjar, bi di le euh, Ligue AIBD ñi nga xamante nak ñom la liggéey boobee laal di sakku rek ak pay jëm ci ñuy d'or ben opération walu xibar bokku na ci njit lu bes bu COUD centre œuvre universitaire ab euh, directeur général bu Bofumaget ba fu sen di euh, maire bu Malikounda wax na li nga xamante ne mooy jëm ci walu liggéey bi ak fam ko nara du fenn fu may mu gënal nekkinu étudiant yak liggéeykat yi ci COUD COUD mooy yitéwo dundu ak nekkinu étudiants de l'Université université Cheikh Anta Diop Dakar. C'est ci technique bi Abdoulaye tàmbalee xibaar yi ak association ànd jàppalante euh, te TFS ak Mbour euh, ñoom nag euh, wàllu mbëkk mi lañu gis ne daal foo ko natt rek ji ji weesu na ko dem nañ ba gis sax ne la mu rey ci nit moo ëpp li coronavirus gi yóbbu moo waral ñu taxaw sàkku ci kilifa yi ñu daal di ca taxawee na mu ware taxawal ko it na mu gën a gaawee ñu déglu ci Abdourahmane Diallo. mbëkk mi ñun bu ñu sañoon du fi am parce que bu fi amee tey di ñun ñooy perte. Cheikh Si Ndiaye mooy njiitu association ànd jàppalante bu tefes kuréel gii di ñaawlu mbëkk mi nga xam ni fan yi dañ ko nemmeeku Mouhamad Abibullah Fall kenn la ci association bi. gis nga coronavirus bi ñuy wax tey ci juróom-ñaari weer faat na lu toll ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn ci ay bakkan ci juróom-ñaari weer mais mbëkk mi ci ñetti weer lim bi jege na téeméer. kon doole bi ñu def ci sensibilisation ba ñu mën a jàkkaarloo corona bi ba presque daan ko tey defe naa ni bu ñu ko defee ci mbëkk mi itam mën nañu ko jekku ba daan ko parce que li mbëkk mi reyagu moo ëpp li li li corona bi rey. lu ëpp juróomi fukki ndaw yu dëkkee tefes daal di ñàkk seeni bakkan ci géej gi njiitu conseil départemental bokk tamit ci association ànd jàppalante bu tefes di dalal xel yi Saliou Samb. parents yi tamit gën a taxawu seeni njaboot ak yaakaar bi ñu am ci état pour que politique jeunesse bi nga xam ne.

association ànd jàppalante bu tefes daal di woo bépp doomu tefes ngir ñu set seetal quartier bi waaye tamit fexe ba nga xam ne dinañu waxtaanee mbëkk mi li nga xam ne mun na ko gàllankoor ci ndaw ñi RFM Mbour Abdourahmane Diallo jërëjëf Abdourahmane Sébikotane lu ëpp juróomi téeméeri euh, dëkkuwaay yu nu fa war a daaneel ndax liggéey bi jëm ci yoon wi nga xamante ni saxaar gi di tëyeex gi fa lay jaar tàllal wutali AIBD di aéroport Blaise Diagne bu jaas ñi nga xamante ñooy boromi dëkkuwaay yooyu ne ay njiiti euh, boromi kër ñoom ñoom la bëgg mooy ndàmpaay yi tegu seen i yoxo laata ndorteelug bépp opération ndax jàpp nañ ni daal ay weere ngi bi ñu defee xayma gi léegi waaye gisagunu ak i gët yooyu ndàmpaay Abdou Diouf Diagne ñoom ñi si guddi gu bët setagut la ñu nekk fukki weer ginnaaw bi nga xam ne ay enquêteur daal dinañuy jóge ci APIX ngir daal leen di xamal ne seen kër yooyu dañu fay jógee ndax liggéeyu train express régional bi boobu ba léegi kenn leetu leen te it kenn firiwu leen Daouda Diouf. parce que depuis mois de juin la ñu génnoon benn liste liste bi ñu génnoon dafa bari ay omission ñii dañuy jaawaatle sant yi yow ñu fekk sa kër ne tool nga fi am tellement ñoo xam ne ñu def ay réclamation ba léegi réclamation yi génnu lu tolloog juróomi ne war nañu koo toj nag seeni borom ni daataañu koo tabax dañoo leb xaalis ci banque yi famille yëpp ñoo jaaxle ngay tabax sa kër ñu arrêté ngay leb banque yi di ko fay nga war ko def si sa kër defoo ko ci nga def ko si yeneen yor suñu kër ñu tëj ko ñoo xam ne ñi woon sur ñu toxu si ak seen famille ba tey mënuñoo ñëw ñeneen ñi ñu arrêté leen apix si mu ñu tooñee ñu nag yàlla rek ñoo ko xam vraiment tooñ gi metti na maire ba futtu ñoom ñi jóge ci quartier yi di Sibigar Escale Ngéen Carrière Salwas ak Yeba ñu ngi nag sàkku si réew mi mu daal di ciy dugal loxoom

juróom benn di milliards wala boog juróom benn di téeméeri milliards six cent milliards yu nu investir ci Casamance bët Saalumu Sénégal ci kaw budget année 2019 muy xibaar tukkee ci député bi di Moussa Sané bu sañoon nag ñu daal di càmbar na mu gën a yaatoo audité loole ne koppar jëm ci projet programme yi Casamance Lamine Ba PPDC PUDC PUMA PRODAC programme yi intervenir ci Casamance bëri ba tax na ci weesu na juróom benn téeméeri milliards yi nga xam ne dugal nañ ko fii honorable député Moussa Sané xam leen mel ba tax na jàpp na ne jot na nag ñu xayma programme yooyu audité ko xool fan la koppar yi jaar. programme yi ñu amoon c'est vrai que ni évaluation bi manqué na. tey boo xoolee tey si région yi. tey Casamance équité territoriale boobu mu ngi koy wàccee ba fu nekk. donc tey ñu yi ñu tolloon fan la toll lan lañ ci def ñu pointé programme par programme lan lañ ci réalisé ak fa mu toll tey donc je pense que ni loolu lu mënta ñàkk la. jamono ji nag li weesu sàkku bi nga xam ne def nañ ko nguur gi ci wàllu woowee ñoom député yi sax fas nañu yéene ñëw fii ci Casamance wàcc doxantu fu ne ngir saytu ndax projet yooyu ak programme yi amal nañu liggéey bu ñu leen sant na mu waree. dama wax sànq ni collectif bi ñu taxawa ñu ngi liggéey te collectif bi dina def une tournée la région naturelle. parce que le collectif est 18 députés Le collectif boobu nous ko le collectif des députés de la Casamance naturelle. pour avons préparé une tournée au niveau régional hein, des les trois régions de la Casamance dem les politiques publiques Yoy, évaluer ko lan dem lan avec les gouverneurs avec les les services décentralisés de l'État lan ak lan moo amut. Moussa Sané moo ngi bokkoon ci ab délégation bi nga xam ne ñëw na démb fi ci ADEAN ngir nemmeeku ci tolluwaayu liggéey bi waa waajal ci taxawal li nga xam ne nag moo di Agropole nga xam ne ci mbébét bi nga xam ne kilifa am nañ ko mooy fexe fukk ak ñeenti junni ndaw am fexe yi ci ab investissement public bi nga xam ne weesu na juróom fukki milliards Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. jërëjëf Lamine kàddu yu njëkk yu njiit lu bees bu cour de centre des œuvres universitaires de Dakar di Maguette sen di it euh, maire bu Malicounda euh, jàpp na ni yéeneem ak liggéey beeg euh, fa mu ko fas yéene jaarale di feuille de route bi mooy wàllu lépp luy gënal nekkin ak dundinu étudiant yi naka noonu liggéeykat yi foofee ci cour de mu ngi ko xamle moom maire bu Malicounda jamono yi mu doon yëkkati taxaw ndimbal di ay fourniture jëmee ci gune yi nga xamante ni ñoo amee laago ca ne ca commune am Maguette Sène ak Abdourahmane Diallo. Je profite juste de l'occasion pour remercier le président Macky Sall de m'avoir fait confiance une deuxième fois après la DMTA, de m'avoir confié à la direction générale du Centre des œuvres universitaires de Dakar, qui est une boîte extrêmement importante. Et j'entends mettre en tout cas l'association de tous les acteurs au cœur de mes activités. Je voudrais que toutes mes démarches se fassent de manière inclusive, participative et que pour chaque activité, que les personnes concernées soient impliquées et qu'ensemble on puisse faire du cadre universitaire un cadre de travail agréable et pour que véritablement les étudiants puissent évoluer dans un environnement qui puisse leur permettre de réussir dans les études. ñu jéggalu ci francais yooyu euh, ak Maguette seen maire bu Malicounda euh, ci yeneen jotaayu xibaar du ñàkk xëy na ñu àndaat ci ak yéen ci wolof euh, la mu doon wax rek mooy rafetlu kóolute geneen gi président Sall teg ci kawam naka noonu it yéeneem ci luy gënal nekk nu étudiants yi ngir seen ëllëgu njàng waaye it liggéeykat yi ku ca kudd mu ko xam ne ci jamonoy ndimbal gum doon baaxee élèves di ay handicapés yu commune bu Malicounda.

ay étudiants yu université Gaston Berger bu Ndaar mer bani futt benn fan gannaaw manifestation boo xam ni jotoon nañ ko am mu am ci ñenn ci ñoom ñu am ay gaañu gaañu lim bi doon ñeent waaye itam bus ñu taal ko ci bërëb bi ñoom nag dañu baare woon route nationale 2 bi laata sàndarma yi di egsi di jël ay grenades lacrymogènes di leen ko jol li waraloon seen ñaxtu bile moo di ñànkum ndox ci campus social bi ñoom nag ñu ñambaas ci gunge goo xam ni nguur gi waroon na ko def étudiant master 2 yi nekk ci université yi ndax nag atum jàng mi ci boppam moo sooxee. Omar Chérif Diallo di njiitu coordination bi xamle jafe-jafe yi ñuy dund ci bërëb bile. L'UGB ne reçoit que 250 mètres cubes d'eau par jour, ce qui est très. université mètres cube Dongle, la de l'Université ñi fi de su ngeen étudiants. ratio du de def de pour étudiants, lolo dafa de mënuñ ko nangu. itam étudiants yu l'Université que soutenance wala ci as administration seen bir yeex ci as nguur de la ñu gis ni dañ leen en charge bu tu a baax ci la bourse yi intégré leen ci bi itam soutenir ndax nag loolu du seen responsabilité ci as kilifa yi la donc c'est un paiement légitime. ñuy fàttali ni ci bërëb bi fukki junne ak ñaari junne étudiants ñoo ci ne waaye nu mënti demee amul benn yoon gàllankoor ci wàllub njàng mi dañu yemale moo d'ordre bi ci ngénte tubaab bi wéy ci bërëb bi ñoom nag ñu bëgg kilifa yi tontu leen ci jafe-jafe joo xam ni am nañ ko te bëgg nañ ci saafara bala bay di wéy mbuus RFM ci Ndangéej Mohamed Nabi Sylla la ñu waxtaanee politique ak li nga xamante mooy am ndaje diggante njiitu réew mi président Macky Sall ak euh, Boubacar euh, Camara bu coalition jot na Ousmane Sonko njiital Pastef xalaat bi mu ci am mooy ne ku wàccoo respecté ak euh, lii di doxali nap naatangoom bi di Boubacar Camara la ci rafetlu na seen ànd ci yi bi ñu taxawal coalition bi moom leader bu Pastef dafa jàpp ne jamono yi réew mi ne toll ci du wax ju sew waaye yitte yaa nga feneen lu ci mel ni mbëkk meeg yeneen ci bataaxal nu ko leerale ñoom waa Pastef Malick Sow jàngal ñu amul dara lu yàqu si suñu diggante Ousmane Sonko ci ay tàmbali kàddoom sax la xam ne lu nu mel nee na ki nga xamante ni da ko doon jàppale bu baax ci wàllum politique seenub diggante amul benn gàq-gàq ci fàttali Boubacar Camara moom sax candidat la woon daa bëggoon jiite Sénégal waaye parrainage ba la motalawul woon ba waraloon mu dem fekki waa coalition Sonko président Ousmane Sonko xamle na ne Boubacar Camara ci boppam mooy yëkkati téléphone am woo ko xamal ko ne président Macky Sall daf koo soxla te daf koo fas yéenee fekk ji mu doon li nga xamante ni lu Ousmane Sonko nangu la ndaxte nee na politique bi guddi yi ni muy doxee ku nekk ak gis-gisam moo tax ba moom gis-gisu Boubacar Camara bile daf ko respecté ndaxte bokkut ci ñi nga xamante ni boo ànd ak ñoom ñu tagg la boo leen wanee gannaaw ñu xalab la la xam la ci benn communiqué kayit boobu ba tey di fàttali ne Ousmane Sonko nee na am na ay kàddu yu ñu koy dénk ne moom moo ko wax ginnaaw ba gouvernement bu bees bi bañ ko taxawalee moom nee na loolu dara du ci dëgg nee na loolu sax du coow li dëgg-dëgg jafe réew mi la ñu war a wax bokk na ci wàllum inondation wàllum mbëkk mi 19 bi niñ ko yore ak suuf si ñuy caxat caxatee waaye moom Ousmane Sonko ba tey ba muy daaneel ay kàddoom nee na askan wi mooy atte bu jotee. tàggat yaram ñu dalal Malal Junior Diagne maa ngi lay ziar Malal. maa ngi lay delloo ziar la jasan bisimilah. ñu tàmbali ak wàllu équipe nationale football ñoom dañu daal di dugg regroupement bis nekk démb juróom-ñeent ci ay xale fii la ñu fanaan ca seen dalwaay ba ca Sali waaye am na ca suur yoo xam ne du bokk ci ndaje mi war a dox diggante Sénégal ak Guinée Bissau bokk na ca suur yooya Salif euh, Saliou Ciss <coughs> Ousseynou Ba Keita Balde Famara Diédhiou ak Idrissa Gana Gueye yi xale dana am yu wopp yu leen tere dikk ci équipe nationale bi gannaaw loola Aliou Cissé woo na yeneen gone yu seen yaram euh, yënguwul nu wuutu leen bokk na ca Nabi Sarr Sada Thioub Euh, Alpha Jongu ak Formose Mendy nekkoon ci équipe national bu tout tànk yi moom woolu nañ ko ñoom nag danañu football àllarba muy gannaaw ëllëg ca Thiès googa alaaji nga xam ne foofa nga fekk baax <laughs> seen diggante ak waa Guinée Bissau lay doon. dootul information. bu <laughs> ne fa jógee soog a dem nag ca Guinée Bissau ngir jogante ji ci éliminatoire Coupe d'Afrique 2022 boo war a xewee foofa ca euh, réewub euh, Cameroun. équipe nationale beneen bu war a jongante ba tey ca Thiès ñaar fukk fan ak euh, ñaar fan ci weer wi ba ñaar fan ak juróom-ñeent muy tournoi UFOA zone A muy U20 yi ñoom itam ña nga ci seen lëluga di waajal jóg jongante ca euh, Tubaab Jalaaw ca centre Jules François Bocandé la ñoo defee loola bu ñu sukkandikoo ci seen entraîneur bi di Youssouf Dabo nee na waajtaay bi lépp ngay jaar ci yoon. waaw lépp ngi jaar ci yoon fu mu toll nii ñu ngi si liggéey bu baax a baax dafa am lu ñu doon jooytu muy match euh, niveau international ñàkkoon ko lool. Euh, Maroc euh, may ñu opportunité bi ñu am ko am ñaari match si seen dëkk euh, mu permettre ñu xoolaat yenn xale yi nga xamante ne xam nañ xam nañ leen ba pare et puis jox ñu bees ñi ñenn ñu bees ñi seen chance pour que ñu mën a wane seen bopp et à partir de là am na ay enseignement yu ñu si tiré yoo xamante ni ci loolu la ñuy sukkandiku pour gën a améliorer groupe bi comme ça ci tournoi bi nga xamante ni moom la ñu jëm ñu gën fee mën a am taxawaay bu gën a dëgër donc euh, suñu toll nii liggéey bi moom alhamdulilah ñu ngi def bu baax a baax euh, ci anam baax daal. football bi ca biti réew démb ñëpp ko doon xaar ci Angleterre doxoon diggante Manchester City ak waa Liverpool dañoo tëwoo ku ne am benn sa kañu morom Tottenham dem daan West Brom benn ci dara Aston Villa daan waa Arsenal seen terrain ba ñetti bal si dara. it euh, ca fële nag di euh, réew Espagne moom la fa gënoon a fës démb mooy défaite bi waa euh, Real Madrid am jël bu diis lañ leen daal di daan ñeenti bal si benn Villarreal itam dem daan daane Retafe ñetti si benn ca Italie moom Naples moo daan Bologne benn ci dara Juve Tëwo ak waa Lazio ku ne am benn ci sa kangi morom nu jeexal ak waa randonnée pédestre yi war a waajal Coupe d'Afrique boo xam ne des ko bëgg amal foofa ca réew Côte d'Ivoire ca Abidjan ne guddi ñu toll nii fukki jour la ñu daal di kon tànn ngir ñu mën a tàggatu ci ñooñu la ñuy daal di génnee ñu war a dem teewal Sénégal ci kooku jongante nga xam dafay dajale ay réewi Afrique ñu ne nag sebi xotaan lañ koy defee lu tax sebi xotaan ñu tànn foofu ngir tàggatu fa Libaas Ndiir di président fédération randonnée pédestre dikk na ci ak ñun actuellement nii dañuy waajal benn doxu tàggat yaram bu yàgg ba nga xam ni début décembre bii di ñëw dañ ko war a def fële sa Côte d'Ivoire Abidjan bi waxtaan waxtaanee ñun suñu biir ñun waa Sénégal woo ñëpp ñi nga xam ne ñoo jiite club fii Sénégal waxtaan ak ñoom bi ñu xoolee ni temps bi gàtt na ñu ni fukk ñi nga xam ne ñoo jiitu woon si dox bi fii africains yi ñëwee woon si mois de février fukk yooyu la ñuy tànn génn si benn équipe bu juróomi nit pour ànd ak ñoom Abidjan looloo tax bi ñu xoolee nii Sébikotane rek moo am jumtuwaay yi nga xam ni moo méngoo ak ñu koy defee fii Abidjan loolu ñu indi fii si Sébikotane athlètes yi ñu nañ fi depuis démb donc tay ji ñu ngi def dox bi suñu paré nak suñu juges yi comité technique bi dinañu tànn juróom yi nga xam ni ñooy meilleur si catégorie yi ñu mën leen yóbbu fukk lañu mais ku ñaar yi si nekk da nga bokk benn catégorie donc euh, dox bi dafa am juróomi catégorie nga xam ni ba si ñi gën a mag ak ñi gën a ndaw ñoom la nuy fas yéene tànn tey sunu paree waxtaanee ko war leen waajal suñu génnee si bisu tey bi nag tànn équipe bi nag si kantanu yàlla comme ni ko fédération yëpp di defee dinañ wut ay jumtuwaay yóbbu leen fu leen làq entraîné entraîné leen ba bis bi war ñëw ñu ànd ak ñoom dem Abidjan tabarkàlla ma nga noonu Alaaji Asan mhm. eh, pare de <laughs> maa ngi lay malal ñu waajal kon rendez-vous boobu dox di xam nga dox baax ci wér gu wala do du dox ak loolu la nekkul doxi woyof yi de ah dama foogoon ni waaw dëgër bi la waaw waaye man de wóolu naa dëgër maanaam bu yéeg ànd ak ay obstacle ak ñoom seen ay montagne ak waaw man de wóolu naa alaaj non yéeg baa ma may sa manager vraiment <laughs> jërëjëf malal pour man RFM mooy radio bi gën a jege askan wi RFM rajo bi jaamu soxla ñu ànd ak Hadj Ndate Diop ci chronique culture bi. dalena leen Walum literature littérature di walum bind lañ koy doore ak téré bi nga xamni ndem si si livre bo xamni dañ koy à titre posthume mudupeko Bamba au service de l'humanité sa vie ses enseignements et son message manam cher Ahmadou Bamba ci bir Dundem bi dundam ak message ba nga xamni lawal Momnak nak Khalif général des mourides ba won di Serigne génnee àdduna boobu ba léegi toll na ci fukki at ak njabootam moom moo eggale boobu téere cérémonie dédicace bi ni ko loon amal ci njeexitalu ay bés yi ci jumaa ju mag ji ñu duppee ji naan nekk fii ci Ndakaaru ci wàllu woowu dañ ciy déglu doomam Amadou Lamine Ba ci micro Oumar Mbow. sama papa de mooy ma jàpp ci rek ne comme moom nag dafa diggaale woon jot ci wax ak ñu bare balaa muy génn àdduna ne leen téere bi ma sëñ Abdoulaat laajoon pare naa ko pare naa ko nag bu ko auteur waxee dafa lu dul mu publier ko édité ko jotu koo def ñun ñu defal nañ ko ko ñun waa këram ñun njabootam euh, defal nañ ko ko ah ñun ñu nekk Dakar nag euh, nekk fi di génnee livre bi Dakar ñu seetee bu baax fan la gën a jekk dañ moom la ñuy njëkk a gis muy jumaa Masalikul Jinaan donc ñu defee woon ko foofu noonu buñ fa toogoon ñun kenn rek def ko fa sax xam sa tumaak euh, lu toll ni RFM ñëw di ko feete di ko fekkee bokk ci symbolisme boobu noonu dañ ko ciy këram lu bare parce que suñ ko defee foofu symbole bi rëy na lool téere baa ngi tudd eh, Bamba au service de l'humanité moo di Bamba jamono la fi nekkal fi mu juddoo li mu juddoo fi mu jaar fi mu jaar ak li muy yóbbante ci message la xam ne dina ko ak jamono mu nekk le message daal ah moom laa ko mën a waxee. cinéma festival image et vie édition 2020 bi jàpp nañ ko fukki fan ak ñeent ba ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre wi di ñëw xëtu woon cay waxtaane ñu duppee ko portes ouvertes édition bi tamit dina nekk boo xam ne nii dañ ci sargal bu baax a baax ki di Mahmoud Kane bokkoon ci ñi sanc association image et Vie mu génn àdduna ci weeru sulet wee weesu ca ngeen jëf ci déglu bi fii la ñu yem di daje ëllëg. Universel Pousse ak seen savon de Marseille ñoo leen di may li ci yéenekaay yéenekaay yeeg du Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf jëye ju tegaloo loolee mooy baat yi yéenekaay bii di journal Libération fant ngir wax ñu le xew ci mbëkk mi mu di immigration clandestine Barça wala Barsaq ubbil surnal bi ndaw suñu naan Elena Moleno Garçon bu collectif Caminando Fronteras ci Espagne moo xam ne ne ci diggante àjjuma juróom-benni fan ba dimanche juróom-ñetti fan ci weeru novembre gi ñu nekk lu mat juróom-ñaari téeméeri doomi Sénégal ak fanweer ak juróom dugg si nañu ci réewum Espagne te ñoom ñëpp ci gaal yi la ñu jaare ba teere ca île Canaries gi mujjee ñëw ndaw si di xam le ne ba muy teer ëndaale na ab néew ndax ci migrant yi daf ci koo xam ne dafa faatu ci biir géej gi am na ñaar fukki gaal yu mbokkoon wutali Espagne keroog samedi leen jàpp ba ñu leen jàppee la ca nekkoon ci migrant toll na ci juróomi téeméeri migrant ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar li faatu ci géej gi ndaw si ne kenn xamul nu ñu toll li réer kenn xamul nu ñu toll fi ñu toll nii journal Libération nañu foo dem ci réew mi ay dëj la dëj yaa ngi ne fa kur ñu bari ñi ngi def ay baas dib dëjël seeni mbokk ndax dañoo demoon ci gaal yi gisatuñ leen baa boo xamatuñ ñu ci ñoom dara Ndiagène ga ca Kébémer ñoo ngi fay jooy ñaar fukki xale ak juróom yoo xam ne dañoo demoon ci gaal gi ba léegi seeni mbokk gis ñu leen xamuñu ci ñoom dara ñu xëy dégg ci l'observateur mbir mu yéeme mu am ci migration clandestine gi mu di juróom benn nit yu bëggoon a jël gaal gi dem Espagne dajale seen xaalis ba mu toll ci jox ko benn waay bu leen waroon yóbbu diil ba kalaate gendarme yi jàpp gaalam ñoom juróom benn yooyee joxe woon seen xaalis li ñu def mooy dem fekk gaal goo xam ne waa ji leen waroon leen joxul seen xaalis du ñu delloo gaal ga gaal geneen mujj suñum nee nañu jullit yi fi nekk ñu bari ci ñoom wane nañu seen bopp kerek ci Ndakaaru mbooloo mu bari ñoo dajale woon ci place Obélisque ngir doon naqarlu ak a ñaawlu caricature yi nga xam ne def nañu ko yonent bi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam yéenekaay bi nañu akit wax ji nga xam ne njiitu réew mi France di Emmanuel Macron wax na ko ci yëf yi ña woote woon dajema vox nañu jébaane nañu Macky Sall doxinam yàq Emmanuel Macron lu mel ne ay dënn ci àdduna bi jullit yu bëri mere ko ca na taxaw baalu ak jéggalu Aminata Touré dem na yoonam Source A moo ko bind yéenekaay bi nañu ginnaaw li mu def keroog ba muy déposer rapport contribution ba mu tënk liggéey ba mu def ca conseil économique social environnemental moom Aminata Touré wax ba sottal tuddul fenn turu Macky Sall mi wan na ginnaaw Macky ak waa këram faaxan keneen ku nar a aw yoon wan leen ginnaaw yéenekaay bi di laas nee la woon mer na te bu ñu liggéeyee ba lépp sotti dañu koy jël jox diri sa sak consort kon moom maître Moussa Diop du mësa taxaw naan mi ngi jàppale kii di Macky Sall Macky Sall ak schéma politique bu yees bi muy doxal l'observateur xëy ci front républicain la ko tuddee ay pexe yu muy nas ngir waajal ba nga xam ne tey ji ñi mu àndal ñu ci mel ne waa AFP ak waa parti socialiste bu ñu xëyoon xëy wan ko ginnaaw du doon lu koy gaañ pexe ya muy nas it bi nañu bokk na it ci waajal lu mu néewalee doole kii di Ousmane Sonko ci diwaanu Casamance ak li ko wër La Tribune xamal ñu ne moom Ousmane Sonko ab coalition Macky Sall tas na ko tasar audience bu mu defal ak kii di Boubacar Camara ca palais ba moo indi coow li yéenekaay bi tegal ñu ci ne audience boobee dañ ko doon nëbbu ak di ko nëpp nëppal waaye journaliste bii di Adama Gaye moo toj kaas yi Mamadou Diop Decroix mi ngi rajaxe lu mu mën yëral xët mu njëkk réew mi quotidien nee ba àdduna bi tukki moom Mamadou Diop Decroix du mës dem di liggéey ak Macky Sall te loolee Macky Sall xam na ko xel Sall meneen ci yéenekaay ñu xëyandool Aidara la ci fas yéene àndal la tribune dolli ñu ci ne ca meeting bu ñu doon amal ca géejawaay ko ba dajale Khalifa Sall Bamba nañu waaye ca meeting ba Khalifa Sall dafa soofantal Bamba Fall snobe ko ba ñëpp seetlu ko snobe ko it ba xolam sedd keneen ku ñu soofantal les éco nee nañu moo di Karim Wade ki ko soofantal moo di maire bu yëmbal sud di Baragay ubbil yéenekaay bi école bu ñu doon daloo foofee keroog samedi ci yëmbal sud fa la xamle moom Baragay ne mi ngi ci biir pax démocratique Sénégal ba léegi te caaxaan du ko fa jëlee mu ne benn kilifalam ci wàllu politique Abdoulaye Wade la tudd keneen ku dul moom Baragay faalewu la journal bi bind ne Baragay sant na Abdoulaye Wade gërëm ko delloo ko njukkal ba nu piit féddale ab gëm-gëmam ci moom féddalit ak nekkam ci biir parti démocratique Sénégal ba noppi nag soofantal xarit ba Karim Wade Universel Pousse ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi jërëjëf Mouhamed ñu ngi leen di gërëm mbokk yi xibaar yi la woon ak RFM tukki mi ci anam yu dëppoowul ak yoon ak jéey yi nga xamante mu ngi koy def ci pénc mi ci ndaw yi Sénégal rawatina association ànd jàppalante bu tefees ak mbuur danoo gis ne daanaka li corona gi rey li mbëkk mi reye ko ëpp moo waral ñu gis ne kilifa yi jot na ñu jóg ci na mu ware lu ëpp juróomi téeméeri dëkkuwaay Sébikotane yu ñu war a daal di yëkkati ndax fo euh, train bi di TER di jaar wutali AIBD ca Blaise Diagne euh, ñi war kon euh, daal di gis seen kër yooyu ñu mabal ko sakku ci kilifa yi ñu jox leen ndàmpaay laata ñuy door opération yi njit lu bes bu du centre des œuvres universitaires de ndakaaru Maguette Sen dit maire bu Malicounda mom dal dina wax fam fasiyene jaar le jaarale liggéey bi du ca fenn fu may mune ne luy gënal nekki nak dundinu étudiants yi ak yu kat yi mu ngi ko xam jamono mu doon amal am xew jëm ci baxé ay fourniture ak li di ndimbal élèves handicapés yu commune bu Malicounda ci technique bi Abdoulaye Diop El Hadj Assane ci micro bi ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kendalu jàmm ca kanam tuuti sujet yu nuy pencu ak yéen wér-gu-yaram dina ci bokk ne altine june ak coronavirus gi docteur Ibou Guissé bu CNEPS la nu ci àndal ak professeur Daouda Ndiaye bu nu ci jógee kàddu askan wi ñu waxtaane te mbëkk mi ak gune yi wàllu immigration clandestine ak yi jéeyaam nees mën a def rek ba gën a waxtaan ak gune yi njaboot yi waaye autorité yi ba saafara juddu ca ñu yendoog jàmm